salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ak yéen saa ne si ay programme Lutte TV Omar ñu ngi fii nag yaakaar naa ne fii amoo siis ah euh, nag champion daanan mu ngi liggéey nag ku ko gis mu xam ne mu ngi ci forme waaye dafa raaroon maa ngi koy tooñ sax naa ko da ngaa laxatu di lekk sa xaalis waaye nag dafa mel ne laxatu na di liggéey mu njëkk doole ah avant dañ koy dalal nuyu ko bàyyi mu nuyu ñu ko bi borom àll bi ah léegi moom nangu na siin si man maa ngi lay bëgg di ziar. waaw Boucar maa ngi lay fay. Mhm. ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur. Mhm. waa di sant suñu sëriñ sëriñ Aliou Maana Ndiaye. di sant waa Ngumba Ngewul. Mhm. di ñaanal sërif ba suñu xalifa yàlla bàyyi ko fi. yàlla oyofal yéen bi si kawam. di ñaanal njabootu Cheikh Mahfou yëpp. bépp bu fi ne si kaw suuf rek fépp fu njabootu Cheikh fu nekk rek. ñu ngi lay ñaanal. nga am jàmm foo mun ti nekk ñu ñaanal mm-hmm. njabootu Cheikh na sa bu yëpp waaw rawatina nag waa Njaasaan bi nga xamante ne suñ côté papa yi fa lañ nekk mm-hmm. di leen ñaanal di nuyu suñu xalifa bu fa nekk seexal bekaay bekaay mm-hmm. di nuyu waa Njaasaan di nuyu suñu buntu si kooku sëñ Mohamed Kunta doomu Cheikh Sid Lamine Kunta di ñaanal mu yàgg fi loolu te wër di nuyu tamit suñu waa daayira bi fa nekk daayira Dakar dem dikk waaw di nuyu waa dëkk bi rek di leen wax njagam moom mu ngi woon si ruqam rek di liggéey wax dëgg yàlla di liggéey boolewu si ay waxam. Mhm. dara boolewu ko ak wax. Mhm. lépp lu ñu nar a wax rek. Mhm. toog liggéey ko nag di ñaanal nag sama papa fu mu tëdd. di ko ñaanal yàlla suuf oyof kawam. moo ko sama papa bàyyi si ak suñ père Ndiaga ñu amul ñu lu ñooñ kaw suuf ñetti ñooñ yaakaar naa bokkoon na ñi tax Ndiaga di boppam si kaw suuf. mais suñ borom lu mu def rek da ngay xam ne li gën la. di ñaanal yàlla suñu yaay yi fi des yàlla bàyyi leen fi bañ fekke suñu njariñ. waaw loolu moom ñu ngi koy sabab bu baax a baax. si lan nga nekk. waa si sama liggéey rek maa ngi entraîné. Hmm. boole ko samay business bopp. Hmm. depuis sa combat ak ñaar yaar gisuñu la lu xew. waa kenn gisuma si si dara. Hmm. xam nga rek njagam moom. moomul yenn yi. tey moom man moom doomu aadama noo mun di tel boo ma yëgee rek. ñu dem ba jeex. mais boo ma yëgul rek. man du ma la yëg. sa promoteur ñu ngi lay seet si pour komba waaw souvent promoteurs yi léeg-léeg nga dégg ay wax mhm. léeg-léeg nga dégg sa ménagère woo la mhm. ne la gars yi dañu bëgg sa combat ak diw ak diw nga jékki-jékki mhm. ñu waar la la combat bi yàqu na wala yaa quelque chose mais man jàpp ma ni fi mu toll nii si mbëri la quoi si mbëri la man jàpp ma ni si mbëri la de ndax tamit gis nga làmb ji lëbu bi fi nekk léegi promoteurs yëpp dañu am seen seen i mbëru bopp ku ne xam na ni jamono ji làmb ji slogan boobu lay doxee léegi nag suñ classe gi nag buñ bañee ku ñu yepp wala ku ñu kii dañuy entraîner rek gëm suñu bopp hmm. nekk si làmb ji gars yi buñ ne ba gis lu tëx ba xamuñ fu ñu jëm hmm. buñ la ko joxee nga fobeere taw xaar leneen léeg-léeg làmb day toll foo xamante ne hmm. am na ni jàppale yoo xamante ne boo ko amul doo ko forcer quoi doo ko forcer ndax boo ko forcer rek di nga def loo bëggul def wala di nga ñàkkal sa bopp fay di say détail te gars yi léeg-léeg dañ fay toll sa combat ak euh, Thiaka Faye sa combat ak Ibou Senghor Thiaka Faye laa njëkkee yéen moom dafa mel ni bëgg na bëre ak yow waaw Thiaka Faye bëgg na bëri ak man mais Thiaka Faye bañu ma bëri ak moom. mais mm-hmm. tamit des na quoi pour man. Mm-hmm. ndax tamit dëgg la de champion la si simple bi. Mm-hmm. li mu des simple bi ñu ñaan ñaan. lutte avec frappe tamit daanagul def lu ko raw simple bi. daanagul Angleterre la mujjee daan lutte avec frappe daanaka 3 ah, combats. Angleterre boobu waxtaan mais 3 combats la bëri xaw ma 4 combats. waaw yaa may dégg te tey man man maa ngi sama 15e combat. yaa may dégg. mun maa bëri 15 combats am si 2 défaites. di tourner tamit di delluwaat ginnaaw. te mbër yi nga xamante ne ñoo fi nekk. ma war a mën a bëre ak ñoom ñuy sama morom. Serigne Ndiaye. ku mel ni Serigne Ndiaye numéro 2 Gris 2 bu Fass. Mhm. ñooñu ñëpp ay morom lañu. maa mhm. ñoom ay lamb yu neex la. Mhm. defuñ fi lu ma deful. sama palmarès boo ko tegoon tey ñi ma daan yàlla xam ne ni ñoom boole boole ñoom mënuñ leen daan. mais nag lamb léeg-léeg bu kalee bu telee fii tamit yow mi nga xamante ne yaay mbër bi. da ngay am da ngay nangu. boo nangoo rek doo sonn. doo sonn ok làmb léeg day toll foofu. lamb day daal. billaahi léeg-léeg. nga nekk si nii suñu borom yéexal affaire yi. mais teewul da ngay gëm sa gëm gëm gëm gëm sa gëm gëm gëm gëm ko rek ngay am. Mm-hmm. pour mën a yeggali sa yoon quoi. Mm-hmm. mais bis boo taxawee rek tey ñu bari li ma dal nii. am na ñu mm-hmm. bari ñoo xam dal na dañoo découragé xool leneen. xool leneen waaw. mais tey jii ñun yàlla may nañu ngëm-ngëm gi. taxaw ni tey képp koo xamante ne taxaw na suñu yoon rek dañ lay faxas dem suñu yoon. loolu bokk na si sax tey adversaire yi ñu gën a moytu. Serigne Ndiaye. waaw mais Serigne Ndiaye maa moom dara combat bu neex la. ndax Serigne Ndiaye bu sumee ko mu sumee ko da ngay ne kenn ku ne mën a daan moromam sportif quoi. Mm-hmm. kenn ku si ne tey jii. Mm-hmm. da ngay xamante ne. Mm-hmm. Serigne su ma daanee war naa waa daan. su ma ko daanee war naa ko daan. loolu rek moo tax combat bu neex mais dara tax ma lay laaj. dafa fi lu ma deful. ñu ñaar ñoo bokkuñu daan Franc moo la daan Franc moo daan. kon yow lam boole nañu. ci côté boobu quoi. Mm-hmm. mais dafa fi loo xamante ne Serigne Ndiaye. Mm-hmm. mun naa taxaw naa la may ba sens xalaatuma ko ay morom lañ. ay morom lañ bu ñu waree bëri dañuy bëri. Mm-hmm. bu ñu waru bëri tamit ñu bàyyi ba mu neex rek yàgg yàgg bu dee yaa si laaj maa ngi si làmb ji. bés dana ñëw yàlla boole ñu combat arène. Gris am mu ngi fi amul combat. foo ko seet see mu ne gars yi dañu koy seet si muy daw. gars yi nee nañ ku ñu yóbbul avance am mu bañ. waaw indil leen ma ko maa ngi nii. pare naa pour Gris 2 bu ma ko tey tey tey pare naa pour fanaanoo avance bi mais tamit ñun comprendre luñ quoi ndax mbëri fi nekk gaynde mer la fa naanoo de non ñu liggéey mm-hmm. man xàmmewu ma bu ñu bojj ak bu ñu boxam ndax tamit ñun ay xale lañ boo liggéeyee ba am doole mm-hmm. da ngay wone sa bopp rek foofu lañ toll nag mm-hmm. ku fi ku def quinze sorties di wone say bopp musu am combat boo xamante ne ah combat bu yomb da ngay taxaw ñu ne combat dafa yomb wala yaa quelque chose léegi nag yoon moom mu demee nii da ngay gëm sa bopp rek xam li nga xam mais taxul tamit nga taxaw tamit ñàkkal sa bopp fayda si ay détails yoo xamante ne mooy loolu noonu la fa demee quoi moor tamit ñun lu si lépp loo xam suñu borom moo ko dogal si ñun hmm. dañuy jàpp rek gëm-gëm ni lii suñu borom moo ko dogal si ñun yàgg yàgg day deñ yàgg yàgg day deñ voilà hmm. nga dëkk dëkkuwaay yu làmb nag muy géejawaay ku ne hmm. géejawaay ne làmb dëgg la euh, cent pour cent géejawaay bi euh, naka ngeen koy dundee non man moom wax dëgg yàlla cent pour cent géejawaay bu ñu ko dee wax tamit ñun gisuñu ko amul fii amul cent pour fii moom bu fekkee dañoo waxante dëgg te yàlla rek tax te yàlla dëgg la bëgg ku lay xaqa wala kaaru mu ran la ñu wax booy dee sax waxal dëgg mais problème mooy mbëri dañuy sàmbalaa mm-hmm. ay sàmbalaa la ñuy def yaakaar na mooy lool mm-hmm. gars yi doxewuñ noonu nga fii doomu aadama lépp loo xamante ne yaa ngi koy wax mm-hmm. wala nga koy jëf te nekkul lu dëggu si yow mun ngaa bàyyiwaat ndànk moo tax mënuñ fi créer dara luy dem géejawaay nag moom lu yàlla xam doy na fii ñu nekk nii dafa bëri ñoo xamante ne duñu ay mbër mais dañuy jaxase mbër yi naafiq yi ñoo sonal gars yi moo tax yi gars yi dañu war a mbër yi mbër ak mbër buñ dajee ñoom ñaar ñu bokk dëkkuwaay man la bu dee yéenante wuñ jàmm sax laa seen relation du ko feeñ mais influenceurs yi fay nekk taxaw naan kii xool na la lii kii def na la lii kii def na la lii kii def na la lii ay seytaane dafa bëri ay seytaane yoo xamante ne ñoo nekk si suuf moo tax géewaay fii kenn mënu fi keree dara mu dem 100 pour cent amu fi. waaw Balla Gaye nag gis nañ combat bi mujj wala combat ak Bombardier nee nañ ne Ndiaga doole ne bokk na si sparring partenaires yi yéena doon ànd di entraîne di contact am na sax ñu ne sax blessure bu mu am sax yaa ko ko def waaye il paraît que combat bi mujj nii tey euh, dafa mel ni dañ lay écarté lu waral loolu non man moom loolu jàppewu ma ko dara mhm. ndax fii moom li ma la waxoon sànq rek koo yëg koo yëg ku la yëg moo la sonal quoi si doomu aadama yi dëgg la Balla Gaye combat mu ñu ñoo ko doon préparé avant combat am bombardier sax bëri na ay combat yu préparé combat am bi mu jugee gàddaay ba ñëw dañoo woo ñu ànd liggéey mu dem suñu borom sutura defal ko ndam moo Gris Bordeaux mhm. moom Modou Lo ñu àndaat liggéey mhm. suñu borom defal ko ndam mhm. mais moom bombardier ànd nañ si liggéey mu génnee si blessure bu metti mu dem daanu mais moo Gris bii mu mën préparé jëlul téléphone am na ma allo Ndiaga wala kii man tamit new ma ko aloo mbër wala yaa quelque chose. Mhm. ndax man mënu maa ñëw ne dama lay jàppale. Mhm. nga maa ëpp fulla mhm. loolu moom su ma ko naree def si yow moom. ma toog xooli leneen. te làmb ji nag loolu moo fi am. ñun dañoon sacrifier suñu bopp. ngir mbëru géejawaay yi. loolu lañ doon def démb ak barki démb. mais léegi doomu aadama da ngay dem ba mel ni yow li ngay def. ah nit ñi nga koy defal ma léeg-léeg doomu aadama nga koy defal dara xamul sa valeur. des fois nag day laaj nga téye sa bopp. man njaga man nekkatuma fi di jàppale benn mbëru géejawaay mhm. nekkatuma fi di sonn si benn mbëru mu mag mhm. lépp loo xamante ne xalaat naa ne war naa ko sonn si mbër jéem ko sonn sama bopp dem sama yoon mhm. lu waral loolu ñun temps bi ñu def géejawaay ñun ñun sa waay dégguloo ma de mës naa toog benn émission naan ay Balla ay ñeen ak ñeneen xalaatuñu jàppale jéemuñ ko sax ndax xamuli problème bi ñun màgg nañ ba toll ni ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo nekkoon suñuy grand école ba dëgg la nag magante lu bari. Mhm. mais ba ñu ñëw école ba école Balla di fa nekk démb ak barki démb ñoom ñoo nekkoon suñuy grand. Mhm. mais tey kenn ku ne tey ñaan nga tey tey nekk si dara ba say raq fekk la si. Mhm. mais bu la say raq fekkee yaatalal. nga jël say raq uuf leen. na noonu lay doxee mais nag gis nga nit bu fekkee da nga ko toog ni kii mënut laa uuf wala mënulaa laa yaatal si ay kiiwam yoon la nga xool jël sa yoonu bopp xool noo def. man da nga ne dafa am jalousie wala dafa am. non jalousie bu fi amee tamit ñoom la ndax tamit man problème mooy man sa waay ma xam kër Balla Gaye ku ma xam kii Balla Gaye xam ni foofu. Mm. fulaak fayda moo ma fa bàyyi. Mm. man ñëw ma si Balla Gaye di ko ñëw ma si Balla Gaye naan nii wala laa. Mm. dañuy nekk si dëgg ànd si dëgg entraîné sérieux. buñ paree ku ne toog këram. musuma dem si Balla Gaye naan ko nii wala naa moom itam musuma toog Balla Gaye naan ko diw nee na nii man du ma du ma genre boobu. musuma dem ci Balla Gaye naan ko kii nee na li wala kii. kon yow lan lan lan nga jàpp ne moo sabab mu dem ba am combat bu toll noonu combat capital te te te waa maanaam yëkkatul téléphone am woo la. comme non damaa parewul rek. ndax problème mooy njagam buy contact du fo. Mm-hmm. su may contact du ma fo. dañuy mm-hmm. contact dañuy bëri comme dëgg dañuy mbëkkante comme ay mbaam. Mm-hmm. yoo xamante ne mooy dañuy mbëkkante comme ay nag. amul defal ndànk. damaa jàpp ne kon dañoo parewul rek man man ci côté boobu quoi sama xel. loolu la ma jox quoi waa jàpp ne mbër mi nga xamante ne moo war a bëree moom mi nga xamante ne moo la yëkkat téléphone am di ma woo yëkkatul téléphone woo na damaa mm-hmm. jàpp ni moom daa parewul ci côté boobu mm-hmm. ndax tamit njaago moom bu ñëwee mm-hmm. amul daal lu ñuy raay raayal bëre bi rek man mënuñu nekk sawaay di nekk di ànd guddeeg bëccëg ñu ñuy daj coono si yow te duñu la wax dëgg man loolu dama koy xeex damay nekk foofu leen wax dëgg guddeeg bëccëg suba ngoon muy neex muy metti du ma bàyyi ba dara xew may soog naan lii de war nañ ko wax wala yàggal chose dëgg la de lu ma nekkee foofu xale laa wala kii dama leen wax lu ñu mën a dégg ñoom ñoo fa nekk ñëpp xam nañ la may wax. Euh, kon da jàpp ne wax ju wax ju naqare daal moo tax daal sawaratuñ si say mbir. non man moom samay mbir mënuñ sawar. Hmm. ndax problème mooy dégg loo man awmatuma sax ay àndandoo mbër boo bëggee dégg-dégg. Hmm. yàlla damay boole samay raq yàlla boole maak samay gaan yoo xamante ne. Hmm. dañuy pare pour entraîner rek ma xamante ne vision moo ñu boole mais xaritu mbër. barki yonent yàlla bi amatuma ko. mënumaa taxaw ne la làmb ji. mbër bi moo fi nekk sama doomu day mënul am. te dëgg la de ñëpp mm. Sa Thiès dañ ma xam wala yaa quelque chose mm. mais su ma taxawee si làmb ji tudd benn mbër ne kii sama doomu ndey la wax naa loolu dëgg mm-hmm. amatul waa mm-hmm. ndax problème mooy mm-hmm. man damaa jàpp ne ki nga xamante ne mooy sa doomu nday dëgg wala mooy kii mooy ki nga xamante ne tey boo sëqatee dina la wax toxo wala yaa quelque chose mais am mais nen teewul am na am nga si nag ay am di jàmm ñoo xamante ne am seq ngeen coloré seq ngeen teraanga di demlante di dëkkalante ah waaw dégguloo ma de ñi seqal teraanga ku mel Sa Thiès tey seq nañ teraanga dañuy dem dañuy dikkalante tey lu ma xewle tey bu ko hmm. yëgee kenn du ko jiitu hmm. moom it lu mu xewle hmm. su ma ko yëgee kenn du ma fa jiitu xam nga ñooñ teraanga lañ séq mais tey ji man su ma bëggee tey di forcer xarit ay àndandoo si ay balaga yi man maa tooñ sama bopp ndax tamit léegi doomu aadama léeg-léeg suñu borom da defal loo xamante ne si temps bu ngeen nekkee ay mbër sax dootu la ñëm niveau munoo xewle ba mu ñëwal la ah munoo def lii ba mu tegal la fa tànkam ndax xamali problème temps tey jii moom yeneen punkal yi xew la mu teg fa tànk mooy gën a yomb jagal bi nga xamante ne day sonn si moom guddeeg bëccëg xew la mu teg fa tànkam mm-hmm. yaa may dégg mm-hmm. ñun loolu dérangé wuñu dañ ko koy nangul yaa may dégg mais problème mooy ñun jamono jii laa la wax fi ñu toll nii temb mm-hmm. taxawatuma taxaw boo xamante ne damay jàppale sama benn mboroom mbër si ay détails koo xamante ne moo ma gën demin si mbër ma njaga pour ne waat naan day sonn si yow loolu njaga yàlla mayatu ko xol boobu te defatu ko si moom te li si kanam rawali bët man li gars yi nekk fi làq-làq man dama ko làq-làq dama koy wax mu leer ngay wax daal li ne ci yow voilà man doom man déggloo ma de man boo may jàpp da may jàppee nii boo may bàyyi da nga may bàyyi nii àndoon neex bañ taxaw ne njaga moom lañ bett muy def lii njaga nangam sangam man am affaire ñàkk yoo xamante ne nekku ma si parce que yonent yàlla ba si combat giri bóoró bi passé rek am na ñoo xamante ne yëg nañu ay influenceur mm-hmm. di ma woo téléphone di ma cooytu mm-hmm. xam nga lan laa ko tont mm-hmm. ma ne ko yow ku baax man xaw ma la xaw ma da ngay enregistré xaw ma mais dama laa ni su ma la woon téléphone naan la ay giri na def lii wala na def laa bu dee Gris Bordeaux mu may dégg sax xelam war koo mun a may quoi. Mhm. mun a man ku ne xam na ni man muusu Balla Gaye buy muusu muusu muusu Géejawaay buy bëre sax muusu Géejawaay laay faral. Mhm. yaa may dégg. Mhm. kon man am na ay détails yu ñàkk fayda yoo xamante ne man xalaatuma ko sama àdduna. mais nag maa moom sama bopp. mais am na yeneen yu ngeen seq à part lamb seqoo leen dara leneen. non non non instant boo bëggee dégg-dégg. sequñ benn business ndax problème mooy. ki nga mën a seqal business koo xamante ne à part mooy koo xamante ne da lay gëstu jàppale. ñun diiraa ñuy ànd ak Balla Gaye ñaata at la. est-ce que mës na bëre ba xalaat ni war naa dugal ku mel ni ñun wala yaa quelque chose est que ñun war nañ fi toog naan dañu am ay problème combat nekk géejewaay fii nii te ñu mot ay mbër ñoom li ñuy posé ñu mun kaa posé mais tamit gars yi tamit ñoom duñ jëm dara si yow yow daal. yaay nekk benn pion boo xamante ne yaay sonn si gars yi bu dégg bëccëg suba ngoon di bañ defet di bañ leen métti. Mhm. ngay faay di fàttali sax yow mbër nga. am na léeg-léeg tolluwaayu jàppalin boo koy dal da ngay dem ba fàtte ni yow sa wàllu bopp mbër nga. billaay wallaay wa taalaay. gars yi nag da ngay demee sa xol demee sa yéene ba mu jeex tàq. man Balla Gaye ñaari combat la fi bëre mais maskawu. di kaalawu dugg si biir géew gi. te bokkuñu écrit. te lu ma risqué li ma gis noonu CNG mu doon na ma si aj à vie. wala mu rajo ma wala mu nangu sama licence. fan lay mujj. est-ce que damay toog bëreewu ma ñoom ñoo ma yor wala yaa quelque mais ku lay defal loolu démb ak barki démb. di sacrifier boppam. di jàpp ni tey jii suñ borom rek moo leen boole xoolu si yow dara xoolul loo am ak loo amul mais kooku ni nga ko mën a jàppalee yomb na. tey jii Balla Gaye su ko neexoon fi mu toog lay toog promoteur bu ko neex mu woo ko mu tëgal ma combat bu ko neex. mais jéemuñ ko si yow dañuy toog la seetaan yaakaar na yow bëggoo dara sa avenir wala yaa quelque ko xam ama fii gaa yi la moo leen sonal boo commencé toll ñoom boo commencé ramper di mettital sa bopp di fayatal sa bopp boo commencé yëg li ñu yëg. nga dem ba si biir yàlla commencé daal dimbali nga toll ni ñoom xam nga problème ñun Sénégal loolu moo ñu sonal tey li nga nekk sax boo fi nekkoon tey nit jógee fa ak performance am doo ko nangul. ok da ngay yaakaar ne kii day ñëw pour kii say tànk wala yàggal ko te ñun esprit boobu dañ ko dépassé ñun lépp lu ñu nekk jamono jii laa la wax. Hmm. suñu gëm-gëm ak suñu fit ak suñu doole moo ñu koy may ku yàlla dimbali nag moo fee am ak ku ñu jàppale hmm. mais leneen amu fi. Mm, yaakaar naa ne am na solo bu amuloo si bëggoon a yokk rek laataa ñëw tàggatoo. waaw comme li may wax rek wax dëgg yàlla waa Lutte yéen ñun amuñ seen fay. Mm-hmm. waaw ndax tamit yéen xamu leen mbër mi wala mbër baa mm-hmm. saa su ne yéen a ngi liggéey ndax télé bii ngeen tuddee Lutte TV tamit. Mm-hmm. yéen a ngi liggéey si làmb am solo. ndax tamit lii dañ koy soxla. jii li ma signifié nii signification leeral la rek. ndax tamit wax ji bari woon na sama côté. fu na lañ doon taxaw. naan ay nii ay ay ay ay ay nii ay man man man man man damaa nekk koo xam ne dañ may écarté wala yàggal ko mm. man amul min def uma nar a écarté si ay détails ndax xamala moo tax mm. njaga doo ko fekk si lu ñàkk fay la njaga soo ko fekk muy toog di jëw mbër kenn si ñoom mënu laa taxaw ne la damay wéet ak njaga mu wax ma si mbër mi lii wala mbër mi laa ndax loolu di jikkoom yaa may dégg mm. kon man su ma toogee komba daw si kama waroon woo muy punkal ma doon woo moo yëkkatiwul téléphone am woo ma te am na sama numéro moom moo tax mu téye sama bopp mais du leneen mais yeneen détails yëpp yooyu garaawul quoi ndax tamit ñu ñu ngi si làmb mm-hmm. ñun mm-hmm. dañoo gëm ni lépp lu ñu metti si làmb mm-hmm. ñun ñoo koy fajal suñu bopp mais du doomu aadama fi ñu toll nii nag wax dëgg yàlla ñu ngi suñuy liggéey ñu ngi entraîné guddeeg bëccëg di waajal simple bi tamit ah mhm. di préparer suñu boobu di xaar combat arène inshallah bu ñu amee combat arène mhm. dañuy bëre bu ñu amul combat arène ñu ngi wàcc simple bi daal ah. instant moom bu ñu toll amul dara lu ñoo xamante dañ koy bàyyi mhm. waaw di nuyu nag waa Fatick waaw di nuyu suñu waa kër bu baax a baax su ma nee Fatick nag sama doom baay yaa ngi foofu ku mel ni Baba Cheikh Yanday suñu yaay Soulay sama doom baay nekk foofu yëpp ko ñu daral ko ñu garmisin maa leen nuyu baax a baax a baax di nuyu waa kër Baye Soxna ñooñu wax dëgg yàlla jamono yi sama papa ak seen papa loolu démb la waa barki du du tey te ñoom fàttewuñ loolu moo demee sëñ sëñ Ibrahima Soxna dañuy toog di waxtaan du démb ak barki démb du toog mooy fàttali seen papa mu ñëw si jàkka ji di ma expliqué leneen ak leneen kon ñun ak ñooñu démb la ñu ñun waa Fatick lañ waa Sine lañ ñun kenn mënuñu génne Sine ndax boo ñëwee ba Sorox El Hadj Diop Sorox mi ngay dégg. kooku sama papa ak papaam ñoo bokk ndey ak baay. yow siin nga kon tey man su ma ñëwee mun naa xees nag nekk seen biir ngeen may jëw mais amul dara loo xam ne dangeen koy wax may jaaxal ñun waa siin seen liñ ndax suñuy papa ak suñuy maam yëpp a ngi foofu ndax boo nee Fatick fekk suñ kër gu mag rawatina nag maa ngi beral nuyoo waa Diouroup si mel ni bàcc logaan mooy sama patron tey jii lépp lu ma kii rek moom moo ma si teg si kot moo ma ciy génne ndax léegi ma toog mu woo ma mbër kaay monta moteur bi kaay def lii kaay def lii nga toog taqale fi li ngay taqale ñëw toogaat jàpp sa ñombur kon kooku ñun amuñu fayam te teewul tamit lépp loo xamante ne gis na ko lu baax loo xamante suñu avance son avancement day taal otoom yóbbu ñu boole ñoo ay nit ñu baax ñuy nekk moom mën ne waa jurub rek jeexal na wax ku su mel Daouda Ndour nag suñu xarit la ñu ngi koy nuyu baax a baax ak famille ak seen waa kër waa Diouroup daal Diouroup ñëpp rek Diouroup marché Diouroup Ndour Ndour Diouroup du dam Diouroup bu mag Ngojlem dëkk yooyu yëpp daal amul dépp boo xamante ne waa Duudam waagaan sama waa ji maa ngi koy nuyu bu baax baax. ancien gloire bi waaw ancien gloire bi sama <laughs> gaan la nag sama doom ndey la sama mm-hmm. lonko la. Mm-hmm, mm-hmm. mais maa ngi nuyuwaat sama beneen doomu ndey boo xamante ne waagaan seen lañ koy wax. borom Ndofane waagaan waaw. waaw sama doom la sama waay la sama non non non nekk sa waay kooku sama doom la <laughs> non kooku sama rakk la ah, sama doom la amul solo waa waagaan maa lay nuyu bu baax a baax mhm. sama nit nga sama lépp nga yow moom mhm. ku xam na ne maa yow benn lañ mhm. waa ndax yàlla moo def loolu su ma ñëwee seen kër dañuy yaakaar ni falaa dëkk falaa yaroo te wax dëgg yàlla di la ñaanal yàlla sa yaay mi nga nekkal tamit yàlla na gën a fekk sa njariñ amiin waaw di nuyu waa Mbéla Kajaw Cheikh Ndiaye sama xarit maa ngi koy nuyu à passage. boroom kër jibaan ndax moom aw ma fayam. yàlla na jàmmam yàgg. sama xarit la. Mhm. sama lépp la. Mhm. amul fépp boo xamante ne. njaga nag ñoo ngi bëgg a bokk maa ngi nuyu waa Djilor de. ñu ngi bëgg a bokk ay xarit de. sama papa. <laughs> Ah. ngaari ah. sama père aw ma fayam. Mhm. billaahi chaque instant daf may woo. di nuyu waa Ndour Ndour bi nekk foofu. ñoom Samba sama gars tey xam nga rek man tey fu mu tourné dem rek hmm. àll siin ngeeg àll saalum gi noonu laa fa mel da ngay dem nga yaakaar fa laa dëkk hmm. ndax tey boo demee tey ba Kaarang yaa ngi dëkk yaa ngi dem dëkk bi nga xamante ne fa la sama papa jóge muy kër Samba hmm. boo rombee Sirmang rek ngi yaa kër Samba kon ñun diggante siin ak saalum kenn mënuñu fa génne kenn ëpp lu ñu fa dara maa ngi nuyu tamit waa kër Samba Gueye bu baax baax di nuyu waa Gosaas di nuyu waa Touba di nuyu waa Kër Ndiallo rawatina nag sama waa koñ aw seen fay ndax chaque jour tamit ñu ngi may woon ni ñoom bàyyiwuñ ndax tamit tey Guédiawaye li muy rëy rëy rëy yaakaar naa sama ko ñu mu organisé jafe na fi quoi ndax nga nekk say raq ku mel ni bébé guy gi caatu njaga saar nga lum numéro 2 wextan nga nekk say raq billaahi wallaahi wa taala nga nekk say raq ñu jox la bopp loolu maanaam day am maanaam loo xam ne da koy dund ak ñoom mu sincère. Mm. mooy waral lu mel noonu. Mm. man li gën a dee barke yéen dama doon sacrifier sama bopp si ay mbër yu mag yoo xamante ne. Mm. xaw ma Balla Gaye doon am combat sama écrit am booy fa am combat. ma bool lu neex lu ma naqari jàpp ne sama écrit booy yi fa ne dañu fay jàppale kii dem di jàppale mbër moo xamante ne mooy loolu. mais def def la rek mënul mënul mënul romb quoi. des na la loolu paase na. c'est la destin quoi loolu mënul ñàkk. li am nag ba am. Hmm. mais njaga moom yoonam bii mu jël moom. Hmm. xam naa ne ay caaxaan jëlewu ko si. te xam naa ne moom bu dee yàlla mu ngi def jàmm rek. Hmm. njaga li de si carrière laa la wax de. kenn dootul gis njaga. si ginnaaw benn mbër mu fay def affaire ñàkk fayda. wala muy dem na te bàyyi boppam. jamono juñ toll nii quoi. muy kii muy kaa nag ñëpp laa see ma lay. am na solo li ma wax moom waxuma pour kenn nit waxuma pour ñaar nit. jamono jii. Mm. lépp lu ma nar a sonal si doomu aadama laala la wax si ay mbir. Mm. ah ko sama bopp. leen nag mun na képp ku ma woo ngir ñu liggéey. Mm -hmm. pare naa pour liggéey yow. -hmm. ndax liggéey moo ñu fi bàyyi. -hmm. mais comme niñ doon def. démb ak barki démb naan géejewaay nii géejewaay naa ku ne taxaw fi naan nii. njaga nekkatu si yooyu. njaga mu si yeneen. maa ngi lay bëgg. voilà jaajëf. amal jàmm bookar sant naa leen gërëm naa leen. am lañ ci am waa Lutte TV. di gërëm nag sama gars yi sama place. Mhm. fi may defaree ventilateur yi fii place Diawara place mhm. Boubacar. Mhm. ak Guèye suñu patron. <laughs> amuñ seen fay quoi sama gars yi maa leen di gërëm. di ah. gërëm tamit borom salle bi. Fil fitness suñu xarit la suñu gaañ la suñu lépp la. chaque jour mbëru Guédiawaye yëpp dañuy ñëw fi di entraîner gratuite moom mu leen koy defal hmm. te ngoon boo ñëwee fii salle bi gars yi dañuy sim dañuy def lépp ay hmm. coach yi mucc ayib ñoo fi nekk hmm. kon ñu mel noonu amuñ seen fay fil fitness voilà amoo six voilà amoo quatre amoo quatre marché maam jaara marché maam jaara jeex na esare bébé Elton sa adversaire bi am na problème ndax temps yaa ngi si ay loxo yu wóor na man nu ma jaay nit mu ngi liggéey liggéey lañ ko laaj mu ngi liggéey mu ngi liggéey Ah, ah xam na xam na dégguloo de moom bu taxal woon de bu defoon dara lu liggéey. xam na sëriñ Njaga de. xam na ni Njaga. Mhm. amal maqam boo munti nekk Njaga du jaay doomu aadama. Mhm. mu ngi liggéey. milki zoo am de. na ci nekk. waaw moom xam ne milki zoo milki zoo suñu raqale suñu lépp ñu ngi koy nuyu à passage. waaw mais Bébé Elton lañu dëkkal. waaw mu ngi liggéey. Mhm. ak lu mun a xew mu ngi liggéey te yàlla dina ko defal jàmm baax na na liggéey rek. amul leneen làmb ji keneen moomu ko. Mm-hmm. papaay kenn moomu ko yaay kenn moomu liggéey gëm sa bopp liggéey gëm sa bopp. jeex na ñàkk jariñu moo fi am. Mm-hmm. am lañ jàmm nag bëgg naa si yéen. bëgg aja doom yaay.